salaatu allazi fi kulli sahrin wa fi safar hamaani halaa maahin maal absa wa safar ngir gën a jege ay clientam digital store yokk na réseau ubbi showroom bu bees tàq ca Colobane immeuble CMS janoo ak caserne Samba Diéry Diallo digital store di leen proposer gamme bu yaatu ci wàllu électroménager ay téléphone qualité supérieure ay matériel informatique de dernière génération lépp lu mujjee génn ci informatique fekk leen ko digital store digital di représentant exclusif moom dong moo fi teewal marque bi di Crosscall ak ay téléphone portable portable yu mucc ayib dëgër lool ba noppi étanche ñu garanti ko ñett ba juróomi at benn defarkatu téléphone ñemewul garanti téléphone juróomi at digital store mooy yëgal ay clientam ne am na service après vente bu mucc ayib nekk fii ci Colobane nga xam ne dañuy liggéey 24 heures sur 24 am équipe boo xam ne dafay jóge ci place bi dem ba ci seen kër mën nañoo liggéey 24 heures sur 24 fu ngeen ñu soxla ci Sénégal suñu service après vente dafay def tamit ay contrat d'entretien ay contrat de maintenance it di leen gunge ci bépp réparation ak entretien yu seen appareil yi ngeen jënd ba noppi seen partenaire de référence Digital Store mën nga ñoom ci 33 842 61 38 33 842 61 38 wala nga dugg ci suñu site www.digitalstore.sn. ñi nga xam ne ñoo yor lépp loo xam ne wàllu jokkoo gi ci réew mi ñëw fi pour ziar ci bés bi sa bésu maam. bi nga xam ne moom moo tax Sénégal gi yëpp yëngu di yàlla yàlla ñu yàlla dimbali ñu jàll ko ci jàmm ak salaam mu mel bu nammee ñaaw comme ni ko wolof yi di waxee mu mel ni daaw donc ñu ngi sant bu baax ñëw fii ci turam euh, bi ñuy ñëw itam ànd ak na ñëw délégation collaborateur am yëpp am macha allah la boobu indi pour wone fonk gi mu fonk bés bi ak ñëw ziyaare bi mu leen ziyaare ni mu ko amee yitte. bi muy ñëw aussi ci comité d'organisation bi yàlla dogal na mu ngi nii indi nañu ko comité d'organisation bi nga xam ne ñooy yor lépp luy euh, organisation ci màggal gi jëndal na leen ay talkie-walkie mooy yooyu nga xam ne moom la ñuy jokkowee euh, indi na ci lu ma téeméer benn échantillon mi ngi nii euh, dinañ ko voilà mi ngi nii pour que ñi nga xam ne ñooy yor organisation ku fa nga nekk ngeen mën a jokkoo ci rayon boo xam ne dana ma 3 kilomètres ku nekk fa nga nekk di ngeen mën a wax moom indi na ci téeméer yoo xam ni incha allah dañ ko teg sa loxo nga jox ko comité d'organisation bi waaw waaw ci wàllu ndox itam indi na fi lu mat tey 24000 mille 24000 tey moom mooy euh, xaw ma nu ko wolof di waxee ñaar fukki junni ak ñeenti bouteilles ndox yoo xam ne bu soobee yàlla dina ko teg sa loxo lépp pour dugal loxoom ci euh, bës bi nga xam ne mooy bésu magal gi indi na aussi yeneen ndimbal yoo xam ne dina ko jokkoo ak yow donc loolu la woon nañu ko ubbee di yeesal suñu cofeel di yeesal suñu cant di yeesal suñu ziar parce que yàlla dafa dogal ñun ñi nga xam ne ñu ñu tuuti ñu ñu jox kàddu gi pour di wax taalibe Serigne Touba la ñu donc bu ñu ñëwee ba fii mu jox ñu privilège boobu pour ñu wax dañ ko ciy sant bu baax di ko gërëm di la sant itam Mbàkke ci dalal bi di ñaan yàlla yàlla guddal fan bi yàlla wéral la yan wi diis na yàlla na ko yàlla woyofal loolu laa bëggoon wax loolu di joxaat kàddu gi directeur général Abdou Karim Sall jërëjëf yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu sëñ bi ñu ngi lay nuyu ci nuyoo bu gën sell ci baatu assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñoo ngi sant yàlla sant yàlla ci teew bi ñu yàlla teewal fii ci bërëb bu tedd bi ci teew bi ñu teew fii ci bés bi ci ndigalu son excellence monsieur le président de la république ki nga xam ne def ñu wax ñun ñépp ku nekk ci wàll bi nga féete na nga jóg avant pendant et après màggal gi ci lépp li nga xam ne moom lañ la dénk nga ñëw indi sa contribution ñépp xam nañ ne la ville sainte de moment yii yi bàyyi yi ñuy bàyyeekoo ci ay bés ay ay ay bërëb yu baree baree baree bari lott nañu lim nu ñu toll ñu wara a daje fii ci bés boo xam ne àddina bi yépp bàyyi na ko xel mooy bésu màggal looloo waral li nga xam ne moom lañ ñu dénk pour ñu saytu ko mooy jokkoo bi nga xam ne am na solo ci bés boobu mooy jokkoo ci wàllu communication kàllaama ak jokkoo ci wàllu message ak jokkoo ci wàllu internet bugguñu mu am lenn lu ci am gàllankoor pèlerin yi nga xam ne dañuy def déplacement ñëw fii ngir bés boobu waxtaan nañu ak opérateur yi yépp muy Sonatel muy Free muy Expresso pour que ñu def seen kéemtalaay kàttan pour que jokko bi gëna yomb loolu nag tax na ba ñu del dispositif boo xam ne dina ñëw kontaan nañu lool ñëw gisaat sa jëmm ji ñu ngi ñaanal yàlla ki nga xam ne moom mooy xalif général bi yàlla may ko gudd fan bu ànd ak wér te yàlla xam na ni ñaan bii may ñaan ci sama xol laa ko tibbee yàlla na ko yàlla may wér yàlla na ko yàlla may gudd fan am na njëriñ ci jullit ñi am na njëriñ ci réew mi ñoo ngi jottali nuyoo son excellence monsieur le président de la république ki nga xam ne taxawaayam ñépp ràññee nañ ko ci réew mi ñu ñaanal ko yàlla ñu sàkku ngeen ñaanal ko yàlla may ko kàttan nu mu eggalee sumb bi mu sumb ci dal ci jàmm ci biir réew mi xam naa ni mosuleen a jóg di ñaan jàmm ci réew mi loolu bokk na ci li nga xam ne moo tax sunu réew nekk ci jàmm ñaanu mag ñi démb ak seeni ñaan mun nañu jàpp ne bu soobee yàlla inshaa allah réew mi dal rekk lañ fi am Mbàkke ñu ngi lay sant ñu ngi yeesal sunu kóllëre ak sunu xaritoo di wax ni ay ati at maa ngi ñëw di toog fii walla ma dem sa kër ci waxtu yu toll ci waxtu yi nga xam ne moom lañu nekk nii yow tamit ñu ñaanal la yàlla yàlla may la wér may la gudd fan loolu moo nekkoon kàddu yoo xam ne bëgg naa ko rotal di la ndokkale di ndokkale communauté bi yépp ci bés bi nga xam ne mooy bésu màggal bi nga xam ne moom lañ dégmal di ñaan yàlla yàlla may ñu ñu dugg ci bismillahi irrahmani irrahim ñu génn ci alhamdulillahi rabbil alamin bi ma ñëwee sànq xool naa disposition walla dispositif yi opérateur yépp jël rafetlu na li nga xam ne moom la waxante woon ak ñoom ci njëlbeen ni ñu ko defee mun nañu jàpp ci wàllu Sonatel boo comparé daaw ak ren indi nañu lu toll ni fukk ak juróom-ñeent antenne yu bees yu bokkul ak yi fi nekkoon maanaam dispositif bi yokk nañ ci fukk ñaar fukk ak juróom-ñeent antenne gis nañ ni également li fi nekkoon ci antenne yokk nañu capacité yi ñaareel bi jël nañu disposition bi nga xam ne ci wàllu numéro d'urgence yi parce que bés bi ak bés yi ko jiitu ak bés yi si topp ñiy fréquenté yoon yi ñëw ci biir tuuba muy autoroute yi ak axe routier yi ñu baree bari la nit ñu baree bari lañu moo tax ñu war a fagaru ci lépp lu xew ñu war a mën a jëfandikoo numéro d'urgence pour que loolu nekk lu gën a yomb ñeenti opérateur yëpp farlu nañ ci ñaareel bi mooy opérateur express Tigo mooy euh, Free excusez euh, dem nañ ci ñoom tamit bi ñu demee ci ñoom wax nañ ne ci seen dispositif li fi amoon daaw yokk nañ ci juróom-ñeenti antenne ak benn antenne mobile bu nekk fële ci Sikori ñoom tamit ci wàllu numéro d'urgence yi def nañu seen kéemtalaay kattan pour que mu nekk ci wàllu jokkoo mu nekk lu gën a yomb ñeenteel ñetteelu opérateur bi nga xam ne moom mooy Expresso ci seen wàll tamit li fi amoon daaw yokk nañ ci fukk ak ñeent anten antenne yi fi amoon yépp amul woon 4 def nañ ci 4 mooy lu ñuy wax upgrade loolu nag dañ koy sante yàlla parce que bés bi toll bés bi moo toll noonu pour que ñépp sénégalais yépp war a mobiliser wu fexe ba bés bi gën a taaru fexe ba bës bi gën a rafet comme ni ko xaadim rasul buggee walla buggee woon mu mel ñu ngi lay sant ñu ngi lay gërëm ñu ngi lay jéggalu ci guddaay bi waaye mënuma ñëw te duma la rendre compte li nga xam ne moom la ma président de la république sasoon ci wàllu taxawaay ci lu jëm ci jokkoo bi bésu màggal bi di bés bu am solo ci réew mi wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen dalal jàmm ci Touba di teg nuyoo bi ci loxol directeur général ARTP Abdoul Karim Sall. ak mboolem ñi ma àndal ñëpp te ñu nekk ci agronome bokk ak ñoom liggéey di la sant bu baax di la gërëm ci tànk yi ak jéego yi dégg nañ bu baax kàddu yi nga wax ci li nga xam ne aju na ci sa la nga def ko ci liggéey bi rafetlu lañ ko bu baax a baax kon ñu ngi la ci santaat di la gërëm di la xamal ne kon li ci doon sa wàll def nga ko. di seere rek te yàlla tax ndax yàlla def na wala taktumu shahadata wa man yaktumha fa innahu athimun qalbuhu waaye moom mi li ma xam ci moom yàlla def na mës dégg sama soxla su bopp de waaye soxla saali bii de lu mu ci déggee dana ci taxaw loolu mën naa koo seer te jëkkut tey tàmbalee ca jamonoy sii di Muxtaar yàlla suñu borom dolli ay leer te tax suñ ci barkeem yóbbante na ma ay yoon nit ñu fa ñëw seq moom liggéey wala ñu ci amee jafe-jafe mu wax ma ko ma wax ko ko mu taxaw ca taxawaay bu mat sëkk loolu kon yëg nañ ko te fàttewuñ ko ginnaaw bi itam bi mu fi nekkee ministère environnement fàtte fàttewul ne ko yeggu daanaka ëpp ñetti màggal wala ñeent boobu waa daayira Touba ca kanam doon xalaat def ay njëmbatu garab ci ndigalu sëriñ bi ba mu ko yëgee mu ñëw ànd ak ministère yu bari def ca taxawaay bu mat sëkk mooy garab ya ne ci boo dugg Touba ba ne woon daa bëgg autour bépp ñu jëmbat koy garab loolu di xalaat yu am solo loo xam ne njariñul Sénégal la du njariñ loo xam ne njariñ lu teew la waaye njariñ luy nekk ci kanam la bali ci mujj rek am na kenn ci bokki taalib yi koo xam ne ñaar sax laay wax loolu diggante bi sax motu seeni diggante motu weer kii am na amoon na fa soxla ci fréquence bu mu fa doon topp lu yàgg ka fa jëkkoon mu xawoon faa jafe ba mu ko déggee def na ci yitte taxawaay boo xam ne mëni su ko weesu ba ca desaat am na benn mbokkum taalibe bi moo xam ne ci commune am la nekk amoon fa place am fay jafe-jafe ba mu amee it ba ma ko woowee fa sansa dana ma neexu ko bis sàngam nañu ba mu dikkee mu def yitte ja kon loolu lépp ay taxawaay la yoo xam ne gis na ko te defal na ko Sëriñ Tuubaa ko yoonu murit kon cant ak bi rek lañ la fi ëmbal di la ñaanal bu baax yàlla suñu borom gën laa kàttanal ndax gis nañ la lépp lu la dénk rek dañ ci def yitt def ci taxawaay te loolu mooy li am solo kon nag yàlla suñu borom gën la ci barkeelal gën laa defal tawfeex defal ndam ci liggéey bi ngeen yàgg fi ñëw te yàgg ñu fi fekk wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.